jërëjëf Bousso sëñ Cheikh waa commission transport ñu ngi xamal nit ñi war a dem maa yomba 5 heures du matin ku mën a julli cee ca jumaay Montagne Sainte nga ñëw julli see foofu parce que 6 heures pile lan war a départ loolu nag li ko waral mooy ministre bi nga xamante ne moo nekk fii di ministre culture bi 5 6 heures pile dina nu xaar fa la ñuy wax bain des bain nee na moom foofu lay joxe message yu karawaanam ñëpp fekk ko foofu à partir de 6 heures dina fa toog ak journaliste gabonais ñëpp mu wax moom li muy wax nu doog a continuer dem ku ko yëg nga yëgal ko sa moroom seen kër a demie bu nu jullee ba noppi 6 heures mooy départ bi ca mosquée Montagne seen ku bëgg sa billet aussi it nga ñëw jige ma ndax billet yëpp maa ngi ko yore ñi nga xam ne inscrire nañu salaamaaleykum wa rahmatulah. waaw léegi nag ñu ngi jox kàddu gi.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 لا إله إلا الله مصطفى لا إله إلا الله nun ñëpp nu bokk teewlu Serigne Cheikh Khadim Fall أعوذ بالله الباقي من الشيطان الرجيم الفاني وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب asalaamaaleykum wa rahmatulah maa ngi sant yàlla sunu borom di julli ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa di sant Sëriñ Tuubaa xaadimu rasulillahi Cheikh Ibrahima di sant Cheikh Ibrahima di nuyu njabootu Sëriñ Tuubaa gii nu fi fekk yëpp di leen jox seeni wàccuwaay ñëpp nag lu di nuyu njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall gii nu fi fekk. tàmbalee sunu nuyoo ci seex Muhammadul Muntaxa ñu fi nekk di xaadimu rasuul di ñaan yàlla suñu boroom mu yàggal ko di jaay xaadimu rasuul ak nekkam yàlla na bokk ci kiimaani Sëriñ Tuubaa yi ci barke Sëriñ Tuubaa di nuyu Sëriñ Amdi Fall moom di xalifa maam Cheikh Ibrahima Fall di ko ñaanal yàlla suñu boroom yàggal ko te wéral mboolem ñun di tàmbali am nuyoo ci sang si fi toog jóge Sénégal te bokk ci Serigne Touba di nuyu waa Mbusoobe di nuyu mbooleem seexi Serigne Touba yi fi nekk di nuyu autorités yi nga xam ne ñoo dëkk ci réew mi te yàlla suñu boroom jox leen cër ba noppi ñu cër ci Serigne Touba di jaarale suñu nuyoo ci ñoom ñu joxal na ko. ki nga xam ne mooy ambassadeur bi fi teewoon réewum Sénégal ak mbooleem ñi nga xam ne moom la bokkal liggéey bi ci taxawaay bi nga xam ne bi gan ñi tàmbalee ñëw ko tey ñu ngi koy taxawu njaboot gi ci turu Sénégal waaye ci turu yoonu di wax ne sunuy kàddu kàdd la yoo xam ne mënoon naa ñàkk mbariwuma lu ma koy def waaye cër bu ne nam toll du caagee ni yow man ko jox waaye ka tax ñu jox la ko war na laa jaral ndax ginnaaw julli am na ngànt ba ku ko mënul am lu la war sa diggante moom kon ngànt dana am ci ñàkk a mën a wax ak ñàkk bañ a wax waaye danga dem ba ngànt dikkal la bu la ngànt dikkalee nag su boobaa wax rek nga mën a def donte du sab cër nu yëkkati suñuy kàddu ci kanam suñuy kilifa waaye cër bii nga xam ne des koo cër Cheikh Ibra Fall ci biir sëriñ Touba alhamdulilahi rabil alamin sant nañ ci yàlla suñ borom ndax lu sëriñ Touba cëroon Cheikh la àdduna yi dem ba bi liggéeyu Serigne Touba bi li ci gën a rëy <clears throat> bokk na ci yoonu géej gi Gabon waaye ci Gabon it bokk na li gën a rëy ci liggéey bi Mayumba kon suñ njëkkee ba am liggéey bu ñuy def di ko defal Serigne Touba ci Mayumba cër ci maam Cheikh Ibra dara wëlbatiku dinu ci tudd bun dee ay gor cërub Cheikh Ibra war nañ koo jël wane ci mbégte moo xam ne njabootuk Cheikh ba Fall gépp lañ ci wane seen bi mbégte moomu nag ab woote la laa koy tudd ci sama wàllu bopp di ci woo àdduna bépp di leen xamal ne Gabon gi sëriñ Touba def na fi liggéey boo xam ne toll na ci ñu war koo xam nu toll ci war koo wane kon ku ci feeñ yàlla boon na booti àdduna ak alaaxira barkeb Sëriñ Tuubaa ak Maam Cheikh bëgg a wax ne képp koo xam ne yaa ngi ci àdduna bi ak foo mën ne ci àdduna na nga xam ne te di murit di taalibe bi ziyaare Gabon ñëw jaar ci jaari jaari Sëriñ Tuubaa yi warteef la ci yow ndax fii de képp ku fi ñëw ak ni àdduna bi solo nga xam ne bi sëriñ bi bàyyi ñëwee 1895 déwén lay mat téeméeri at ak fanweer tey la am téeméeri at ak ñaar fukk ak juróom-ñeent yàlla suñ borom def ci tawfeex ci weeru tubaab weer wii ci fukki fan yee juróom-ñeent ci fukki fan yee ci weeru wolof wii ci la sëriñ tubaa dellu woon Touba weer wii fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru juillet ci la sëriñ tubaa dellu woon Touba te dafa mel ni loolu lépp ci benn bis bi benn wenn weer wi Cheikh Mouhamadul Moustapha mi nga xam ne it moo yóbbu woon Serigne Touba Touba le 13 juillet bii ci 1945 di ba alxames moom itam ci la dellu woon ci borom suñ borom dogal ñu jekki ba téeméeréelu ati Serigne Touba ñu koy màggal fa Touba Cheikh Mouhamadul Mountakha joxe ndigal ba noppi yàlla dogal mu fekk nu Gabon nun fi fekk tawféex ci nun waaye nag tawféex ji nañ ci tawféexoo liggéey bii nga xam ne ku mel ni Serigne Fallilou Boussa yal na yàlla suñu borom yokk ay leeram. jaa jaay rasulillahi euh, tàmbali na Serigne Touba fii liggéey boo xam ne ñëpp mën nañ cee jëriñu muy bépp kon nag loola maa ngi ci woo bépp taalibi di ci woo bépp Baay Faal fu nit nekk ci àdduna xam la ne ni mu waree ñuy dajale lu jëm ci jumaay Touba ni mu waree ñuy dajale luy tax Touba jag ni mu waree ñuy dajale addiye di ko yóbbu di ko jox ki fi nekkal Serigne Touba ak njabootu Serigne Touba gi noonu la waree muriti Serigne Touba yëpp dajaloo yëkkati seenu ñaq. fexeel ba tabaxal Serigne Touba jumaam ji ci dëkk yi ak jaar-jaaram yi loolu ñoo ngi koy yëgal ñëpp di ñaax nag sama mbokki taalibe yi Baye Fall yi nekk ci dëkk bi xam ne ñoom mbir mii kenn ku nekk ci ñoom war nga koo def mbubb sol ko kenn waratu la cee soññ ku nekk yaa war di soññ ci loolu noo ngi ñaan yàlla sama borom defal nu tawféex ak taysiir noo ngi jéggulu suñu kilifa yii fi nekk nga xam ne fekkee na di féetu na ci Serigne Touba maam waakat maam Thierno Birahim waa kër Serigne Afia waa kër Serigne Cheikh Mouhamadul Basir mooy Serigne Touba waa kër maam Cheikh Ibrahima Fall ak nun taalibe Serigne Touba yi ñi fi nekk ñëpp ñoo ngi leen di sant di leen gërëm di yëkkati suñ cant googu suñ gërëm li ak suñ kàddu yooyu yëpp nag di ko teg ci loxo loxoy sëñ Cheikhouna Bousso mi nga xam ne way juróom moo taxawaloon lii sëñ ngi jër jëf ñoo ngi lay sant di la gërëm ci turu sama rakk yi ma nekkal mu njabootu maam Cheikh yi dañu ma fekk ci dëkk bi sëñ Jili mi sëñ Moustapha sëñ Mouhamed sëñ maam Cheikh Mbodj mi way juróomu jigéen mooy taawub sëñ Mor Talla maam Cheikh Ibra ñu ànd ak ñoom ñëw fekk sëñ Mbacke Dia sëñ Ibrahima Silla ak sëñ Mouhamed Jami ñoo ngi sant ñëpp di gërëm di ñaan yàlla sunu borom mu teewle lañu ci ay déwéni de tey sàkku ci taalibe yi ñu ñaanal ngir jëmi Serigne Touba ba liggéey bii ñu liggéeyal Serigne Touba fii yàlla bu nu ci benn murid mën ci doole Xaadimu Rasuul asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf Fall yow de tey jàngalaat nga nu sax ak taalibe waaye nag sa maam sëñ Mortala Fall daa nekk ak sëñ tubaat ci kees gi di jàng xasida sëñ tubaa toog ba yàgg génn ne ko Mortala njàng mi gën koo teewlu ndax Seydina Muhammad a nga koy digg mu toog ba mu noppi mu ne ko nee na loo bëgg ma defal la ko sëñ Mortala ne tekk mu ne ko mortaala rikk waaye waxal ak taalibe loolu nag jàngal nga nu ko tey bi ngay ñëw mbaxana nga sol waaye bi nga gisee ñi nga bokk ñi bokk ñi ñi bokk ci sañ Tuubaa solatoo ko nga ñëw ñu tegal la fauteuil ne la toog ci nga ne fii laay toog nu dem jëli matelas nga ne matelas bi ak fauteuil yi laa yemale ay xanaa gars yi lii moo dig taalibe Fall jërëjëf lii nag dañ koy sante soxna Seynabou Njëgéen ñoo ngi koy sant moom kër maam du Baro Njëgéen di soxna ci sëñ Cerno moom sëñ Muntaqa lii dox nañ ko ay weer biñ ñëwee kër sëñ bi ànd ak sëñ Cheikh Mbeng mii sëñ bi dañoo jàngalaat moom mii ni ñuy organiser moom léegi organisateur la sëñ Cheikh Xadim loolu faawun wax ko soxna bu tudd nañu fi sax nit muy soxna Aram Ndiaye mu bokk ak moom sëñ së maam daam jigéen moom itam noo ngi koy defal mention spéciale loolu nag noo ko ànd ak soxna Batour Mbale moom bu tàcc waroon ci bis bi dama naan nañ ko tàcc ndax tous les femmes juridiques di Sénégal moo leen jiite muy association boobu waaye daa bàyyi lépp topp caravane bi ànd ak maam Assa mu baax mii nga xam ni moom fa wuy juróom maam jaara tegoon tànkam rek la teg tànk yàlla na bu so baali yàlla na yàgg barki sëñ Touba sëñ fa kii ñëw rek doyoon na sëñ Modou Ablaye ko meññ le général des Baye Fall maamam moo demoon guerre kii rek doyoon na sëñ Mor Talla fa sëñ Ablaye Fall ndar maamam kooku leneen la xajut fii su ma ko waxee sax ñu catuma <laughs> naa noppi barke borom Touba kooku leneen la jërëjëf Fall ñaari minit rekk nu am ay kàddu yu ñu jottalewaat xam nga dëkk bii di Gabon danoo yàgg a wax ni fii tarixa amu fi fii di Gabon amul murit amul xaadir amul laayeen amul tiijaan bu murit yi xewlee tiijaan yi nooy nekk ca waañ wa bu tiijaan yi xewlee murit yi nooy nekk ca waañ wa loolu nag bu ngeen gisee ma yëkkati ko mooy ay kàddu imaamu ratib bu mosquée kan sénégalais moo ngi nit ak Issa mbay mu ngi lay ziyaare bu wër di la jox sa wàccuwaay bu ñu jógee ci loolu it imaam Baye mbay mu Baye Jabel mbay muy imaamu moske bu osange teew na fii ci jotaay bi moom it Baye Jabel Mbaye mooy waajuram ci ñu ñuy rendre hommage ci la bokk mu bàyyi yitteem yépp ñëw teew bu loolu wëyee waa murtashidiin wal murtashidaat teew nan fi si njiitalu sëñ ngeñ ànd ak sëñ daam ak ñépp buñ leen tuddee rek loolu doy na di wax ni liggéey bi ngeen xam ni dangeen ngeen koo ànd ak ñun lépp luñ ci liggéey rek yàlla nañ ci dajeek ngërëmul sunu boroom ngërëmul sëñ Touba di siyaare nag soxna yi di leen jaajëfal taxawaay bi rafet na di siyaare mbokki séeréer yi mbokki soose yi képp kuy ni rek te nekk fii ci dëkk bi te jóge Sénégal nu ngi leen di siyaare di leen jaajëfal salaamaaleykum wa rahmatullah léegi ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu waxtaan wi suñu excellence di suñu amba ambassadeur fii ci Gabon maam Omar Thiaw moom la ñuy ñaan mu ñëw wax ak mbooloo mi tatagal gan yi nga xamante ne ñëpp moom moo leen di daloo ndax moo fi suñu ambassadeur moom moo fi représenté suñu président Bassirou Diomaye Faye Monsieur l'ambassadeur, vous avez la parole. sheytaani rajim bismillahi xam na kàddu yi moom nekk du bëri nekk kàddu euh, sant ak dalal kilifa yi nga xam ne ñoom ñoo jógee senegaal ñëw fekkee euh, xew-xew bi jiital euh, sëriñ Bassirou Mbacké euh, ak euh, sëñ Cheikh Khadim Fall na bu ñu leen tuddee rek mel na ni tudd nañu kilifa yi fi teew yëpp ñu ngi leen di sant ci teewaay bi di leen gërëm di leen wax massa coono parce que xam naa yoon bi aussi yombul bu loolu weesoo aussi di leen ñaan ñu jottali aussi sunu sant sumu ziyaar ak sunu ay ngërëm Euh, kilifa yi nekk euh, Sénégal ñi nekk Touba euh, mm, di ci jiital tamit xalif général bi sëñ Muntaxa Mbakke dama fi yàgg tewee bu weesoo nuyoo yooyu ak souhaiter bienvenue donk ñi jógee Sénégal yëpp di leen transmettre aussi félicitation ak nuyoowu euh, autorité sénégalaise yëpp euh, di président de la république euh, Bassirou Diomaye Diakhar Faye premier ministre monsieur Ousmane Sonko ak la ministre des affaires étrangères madame Yacine Fall bi nga xam ni moom ci boppam bind na ma pour wax ma ni ma aussi caravane bi ñuy waaj lu ambassade bi mu mun ti def aussi na taxaw accompagner leen ba lépp daal li ngeen ci moon ngeen def ko donc euh, ñoom aussi ñu ngeen leen di nuyu di leen sant euh, di remercier aussi le comité d'organisation parce que xam naa ne yàgg na bu ñu nekkee ci préparatifs yi mais lépp aussi luñ ciy def ñu ngi ciy waxtaan ak waa ambassade parfois man sax xëy na du ma am trop jot wante njagaloo moom mooy chef service consulaire u ambassade bi tous les jours mi ngi déggoo ak euh, comité d'organisation donc di leen remercier di leen féliciter parce que aussi liggéey bu am solo la liggéey bu am solo la par delà même euh, yoonu murit rek mais pour tous les sénégalais yi nga xam ni ñoom ñoo nekk fii ci Gabon. donc man aussi en tant qu'ambassadeur ma ci am mbégte di leen ci gërëm di leen ci gën di soññ euh, di leen wax ni aussi vraiment mbégte la pour ñun. que ñuy participer ci événement yu nga xam ni yu mel nii bu weesoo li nga xam ni euh, day feddaliwaat yoonu murit di feddaliwaat taxawaayu sëñ Touba aussi fii si Gabon day nekk loo xam ni aussi euh, day tax waa dëkk bi gën ñu fonk gën a xam aussi suñu taxawaay donc nan la toll te loolu aussi ñoom chaque jour ñi ma koy euh, feddaliwaat du ma ko wax et parfois ci ñoom ñi nga xam ni euh, ci autorités yi gën a mag c'est donc l'occasion pour moi de remercier aussi les autorités gabonaises en première lieu desquelles euh, monsieur le président de la République le chef de l'État le général Brice Clotaire Oligui Nguema ainsi que tout son gouvernement qui aussi euh, n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de l'événement j'en veux pour preuve le déplacement que le ministre de Euh, du tourisme à effectuer auprès donc euh, du Khalif général des Mourides il y a de cela pour euh, montrer sa l'accompagnement des autorités par rapport à la caravane de Mayumba en pour bañ yàggal ci ay wax di remercier waat ñëpp ñi nga xam ni teew nañu fii fekkee événement bi di ñaan yàlla mu sotti si jàmm euh, vraiment liñ ci ñaan ak liñ ciy wut yëpp yàlla na ko yàlla def ba ñu di ko defati ay année année année te xam naa ni loolu maa ngi koy wax waa comité d'organisation bi nee naa ni lii c'est un début mais événement boo xam ni la fii ak cent ans day gën di yokk rek day gën di màgg rek jërëjëf yéen ñëpp merci beaucoup ah jërëjëf excellence yenn saa dinaa faral di wax ni noo ngi doog a am ambassadeur fii ci dëkk bi ndax koo xam ne lu xew mu jóg bu dee bànneex mu jóg bu dee naqar mu jóg même ñu ñi nekk sa village artisanal day ñëw dinu seeti ñun marchand yi ñu xeebu ñii jërëjëf excellence yàlla nga fi yàgg Aïda Tiwaawan nga dëkk wante may ma rek nu ngi siyaare nag presse bi nga xamante ni dañoo jóge senegal damay tàmbalee nag ci sëñ Mourtala sëñ Mourtala liggéey bi yëpp def nga ko ca Sénégal mention spéciale sëñ Xaadim gis nañ liggéey bi rafet na waa TFM ñi fi teew soxna Xadi soxna kii soxna faati kontaan nanu bég nanu waa Touba TV nu ngi leen di jaare aussi waa maa yomba TV nekk fii ci dëkk bi aussi nu ngi leen di jaare Touba ca kanam nu ngi leen di ziare sëñ Xaadim Ngom jaare ay nu continué ba leneen ñëwaat waaw ñu wéyal waxtaan wi léegi nag suñu kilifa ñun ñépp sëñ Basiiru Mbàkke Mbul bu Cheikh Mamadou Muntaxa Mbàkke xalif général de Mourides yàlla na fi yàgg te wér moo war a ñëw baaxe ñu waxtaan ak ñun ñaanal ñu sëñ Basiiru ñoo ngi lay ñaan di sàkku wala ñu ñëw sa wet dafa naa mooy gën a jàppandal yi Mbàkke balay sa nee na mooy ñëw jërëjëf parce que Sëñ Tuubaa tubaab yee fi awal awale woon sa maam ju tedd ja yi mooy ne dinañ ko sànq Basiiru Mbàkke mbul parce que borom Tuubaa ibnu Cheikh Mamadou Muntaxa Mbàkke xalif général des Mourides moom lay yabal mu ñëw taaral taaral maanaam jotaay bi moom la ñuy jox mu waxtaan ak ñun. fii de Rousseau fee jël kàddu barke Serigne Touba nit da daan jógee Gabon ñëw siyaar si Serigne Touba ñu ne ko am na ku jógee Gabon mu ne na ñëw te ngeen wër ko mu wax la ma fa def ba ñu ma ko toppaat samay tànk saalituma benn yoon soxna Ndeye Fatou sunu waa jooju kenn du moom Mbakke kàddu gi yow la ñëpp di déglu sa kàddu gi mooy kàddu Serigne Mountakha mooy kàddu yoon wépp Seex Basirum sëñ Abdou Xaadir jël na kàddoom ak sëñ Ahmad Badawi sànq la ma woo dugal ko sa kàddu sa teewaay bi mooy teewaay yu njabootu sëñ Tuubaa ak sa mbokk yi bisimilah. bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursalin sayidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa ashaabihi ajmain asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñoo ngi nuyu mbokk yi fi teew yépp mbokki Gabon mbokki daayira karawaan bu Mayomba ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaar ci turu Cheikh Mouhamadoul Mountakha ma ñëw fi tey jii ànd ak sama rakk ji di sëñ Mouhamadan nga xam ne ñoo ànd ñëw fii ngir teewal fi sëriñ bi di nuyu ñëpp di siyaar ñëpp di am bu baax nag ci teew gi fi teew ànd ak yéen bis bii muy loo xam ne tey la ko yàlla dogalagoon waaye yàgg naa nekk suñ bëgg-bëgg ndax dégg-déggu maa yomba nekk dafa sëriñ bi nekkoon yaakaar naa ne ku ne sawar na fee ñëw ku ne bëgg na ko sax lay wax waaye ku ne sawar na ko itam kon ah, loolu moo tax sëriñ bi yabal ñu fi ndax sëriñ bi itam loolu yitteem la mu yitte ju mat sëkk ndax yaakaar naa ku xam Cheikh Modou Mountakha xam na ne lépp bépp yëngu bu jëm ci sëriñ Touba rek loolu mbiram la bëgg-bëggam la rawat na lu mel nii nag kon loolu sëriñ bi amu ci sago kon mi ngi leen ci sant bu baax leen wax ne moom bu ko mënoon sax da koy teewe si ndax nekk gi sëriñ bi nekkoon Gabon loolu xew-xew la boo xam ne dara moom mën nañ ne daal ci eh, dara jiitu ko ci taarixu sëriñ bi rawat nag muy taarix boo xam ne ah mën naa ne lépp a ngi ci mën naa ne mbooleem xéewal boo xam ne euh, suñ boroom may na ko sëriñ bi xéewal googu bari na loo xam ne ñun fii lañ ko séentoo daa ci Gabon ndax xew-xew yi xew-xew yu bare bare bare bari yoo xam ne mën naa ne loolu moo loolu xew-xew yooyu muy xew-xew yu yéeme yéeme yéeme waaye dañu mën a wax ne la sëriñ bi tontu woon ka nga xam ne ba sëriñ bi di nettali tukki bi ñu ko Cheikh Modou Bassirou nettalee ca téeram ba wax ne sëriñ bi daa toog di nettali yoonu Gabon wii di wax ba jàgg am ci koo xam ne dafa rëccal dënnam lool daal di yéemu daal ne ci bi coono metti na lool waajile nee na waaye sëñ bi ne ko bu am ne ko cey bu amutoon bu amutoon de kon dara du ko jar ndax ndax ndax lu may ci suñ borom may sëñ bi ne ko bu amutoon de dara du ko jar waaye nag ku ne xam ne mettit wa ndax kooka dafa rëccal dënam ba ndax ndax metti metti mel ne lii moom lañ ko teg waaw kon nag yoonu gabo wi ah wax dëgg yàlla alhamdulilah nettali ko metti na lool waaye nag xéewal gi ci sëñ bi jëlee itam xéewal gu bare bare bare bare bare la am na fu ci doon waxee moom sëriñ bi wax ne hadama rabbi ma haddu yang far li darar yi wasaana ni man kafar di wax ne fii de gasaloon nañ ko fi am pax moo xam ne pax mu xóot def ca sawara maanaam taal ca taal bu yanja yanja yanji dugal ko ci biir loolu dara gënu koo yéeme mu ne waaye nag sama boroom musal na ma ca loolee mu daal wax ne waaw mu daal wax ne waaye sama boroom musal na ma ca loolee daal wax ne sama borom itam ñoŋal na ma ci ñi nga xam ne dañoo weddi yàlla ndax ndax sëriñ bi maanaam suñu borom da ko ñoŋaloon ci yéefar yi ba coono buñ ko mos a itam rek suñ boroom musal ko ca loola waaw kon nag alhamdulilah rek ñu ngi jéggalu ñëpp di am mbégte daal di feeñal suñ mbégte ndax euh, li ci mata wax ci yoon bi ci taarix bi sëñ Ahmadu ñoom ñi yaakaar naa nañu ci leeral lu bare bari kon dañ doon yëkkate suñu kàddu rek muy kàddu yoo xam ne dañ leen doon yëgal rek maanaam mbégteem sëñ bi ci bis bii ba tax mu yebal ñu fi leen jot li itam lu yëpp soxna Baali mi nga xam ne suñu jur la waaye moom itam moo yebal sëriñ Mahmadan mii ñu àndaale ah, leen jot li itam nu yëpp sëriñ Thierno mi nga mi ngeen fi tudd biñ tàmbale ak léegi nga xam ne bi yàlla dogalee ah, ah, sëriñ bi na ci wuutu sëriñ bi ak léegi moom la fi sëñ bi daa yebal yàlla dogal na tey gàllankoor tax ba muntoon a ñëw waaye bu leen jot li nuyoo bu baax a baax a baax kon sëriñ naa ñu ngi leen di nuyut leen siyaar lu bari di leen wax ne day a soobu ngeen liggéey bu rëy boo xam ne seen waajur wa ko sosoon am na ko ko fi wax léegi a yaakaar naa fa mu nekk xolam sedd na guy ndax sos dara lu baax wan ko ginnaaw taxawaay ba gën a taxaw kon loolu kuy sos lu baax ku ne loolu ngay ñaan waaw kon nag kon nag alhamdulilah ñu ngi leen ci siyaar leen ci ndokkeel ci taxawaay bu rafet boobu ak xalaat bu rafet boobu nga xam ne Sëriñ Fallu xalaatoon na ko bu bokk ci liggéey Sëriñ Tuubaa yi gën a kawe nag nga xam ne wax ne man araxa walliyan ne alsaxtulaa li boroom xam-xam yi wax ne man araxa walliyan fakanama ahyaa képp koo xam ne taarixal na wàllu yu day mel na ne ku ko dundal kon nag yoon yoonu Sëriñ Tuubaa wii ak nekk bi mu fi nekkoon kon képp koo xam ne mi ngi koy màggal comme nii ñu koy defe di dem bàgg ca barab ba di ko siyaar di ko dundal dem ba naal fa jumaa ak daara ak yu mel noonu kon loolu yéen weesu ngeen sax taarixal ko weesu ngeen looloo kon yéen jëfal ko ci ngeen toll kon weesu ngeen taarixal ko ginnaaw nag képp koo xam ne taarixal na wàll yu mel na ku kon yéen da ngeen yéen yéen weesu ngeen foofu ni ma ko mën a waxe kon la cay ab yool yàlla ak sëriñ bi ko doon jëf rek ñoo ko xam kon yàlla nañu yàlla àggaleel yéene ji yàlla nañu ci yàlla fay ñun ñëpp ci aw yiw lu kawe suñ jort kon maa ngi jégalu ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. jërëjëf Mbàkke jërëjëf Mbàkke ah xanaa rek ñi nga xamante ni mooy presse yi nga xamante ni ñëw nañ wala jàpp ci liggéey bi Guy Mbind TV foog naa moom rek laa limul woon sëñ Aziz. nu ngi koy ziare moom bu baax nu ngi koy ziare di ko wax ni liggéey liggéey bi bég nañ ci kontaan nañ ci jërëjëf. léegi ñu wéyal liggéey bi dafa am ñu ñun fi nekk ndoloon ñoo xamante ne yàlla dogal na ñu jiituñu am na ci kon xamante ne moom defe naa ne ñun ñëpp féete woon nañ ko muy sëñ Xalil Mbàkke bu sëñ Fàllu moom daa féete woon ak Gabon féete ak waa Gabon dañu bëgg ñu ñaanal leen yàlla. sëñ Xalil Mbàkke bu sëñ Fallu sëñ Falilu Buso mi nga xamante nag moo taxawaloon lii nga xamante ne mooy caravane Mayumba bi sëñ Galas Sindidi Mbàkke imaam Jabel Mbay imaam Mam Ahmadou Si El Hadji Madoun Guèye mi nga xamante ne daayira murit bi fi njëkk a am fii ci Gabon moom moo ko taxawaloon El Hadji Kase Mbuub ñun ñëpp xam nañ ko mu nekk ndoo fee ñun jiitu nañ ca kërug dëgg ga sëñ Badara Diouf sëñ Badara juuf moom it dafa nekk doon ak ñun ci liggéeyal sëñ Touba soxna jaara Bousso bu sëñ Fallou Bousso moom it mu nekkoon di woon feek ñun soxna Ndey bint Samb mi nga xamante ne tudde woon nañ ko ñun ñëpp ñi daan dem Mayumba ne yaa yaa yaay fàll la woon ci liggéey bi yàlla dogal jiitu nañu moom it bokk na ci ak soxna Ndey juuf ñu ñaan ci ndigalu sëñ bi sëñ Basiiru mu jox ñu ndigal ñu ñaanal aji dawli yooyu ñaan yàlla mu yërëm leen ñu dajeeg ndiggal liggéeyub sëñ Tuubaa bi fii ci Gabon ak pay gi ko ci yàlla fay mu sédd leen ci lu kawe su seen njor ñun ñi leen di ñaanal it yàlla yàggal ñu fi ci njiital sëñ Basiru mii doon wax léegi ñu yàgg fi te wér yàgg leen a ñaanal ñoo ngi ñaan sëñ bi mu jox ñu ndigal ñu ñaanal leen muy tawfeex ju rëy